Thank you. c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ni les demain, why? Bo amenga la bunya technique, bo nya ke fekel ya ni ni les demain. comme on vient juste de démarrer duñu bëri trop trop ay matériel mais on avance quand même bu fekkee dinañ def euh, NFS mooy numération formule sanguine ak suñu automate bi BC 3200 donc NFS moo nekk nii tube yaa nekk nii tube yi defee prélèvement léegi mën naa wane waale en même temps expérience ni muy demee wala mm-hmm, mm-hmm. waaw pour def NFS nag c'est simple actuellement machine bi dafa verrouillé wu damay bës fii nii benn touche rek benn chiffre mu tàkk

mais mais je vais mettre son numéro c'est le numéro 851. Mhm. je vais effacer numéro 2 et je mets 851 ensuite je mets aussi le sexe puisque j'ai le femelle je vais descendre voilà. vais je damay passer tube comme en encore par ba pare le la 851 ma le tube bi mettre ici au niveau de la position 1 après ma sur aspiration léegi dans quelques minutes rek incha allah ma ciy leen jox résultat am numération 851 noonu laay def nag pour tous les autres patients jusqu'à ce que may pare yëpp comme ça ma jóge ci numération dem ci beneen étape. taxaw yooyu. waaw waaw soo passé numération bi du yàgg moom day analyser rek. Mhm. dañ koy may une minute deux minutes rek ñu génnee résultat bi. paramètre NFS moo nekk nii dina la jox hémoglobine am dina la jox globule blanc yi jox la globule rouge yi. jox la paramètres yi ñuy soxla yëpp daal en tout cas yi am ci numération yëpp dina la jox résultat yooyu yëpp léegi nag li des nag médecin bi la moom mooy def interprétation mooy xool ba xam infection la am wala anémie la am la def daal c'est le boulot du médecin waaw résultat bàyyi nii par exemple fii su ngeen gisee mu affiché def ay L L mooy mooy mooy dafa baax résultat ay baax par exemple su defee par exemple dafa def hémoglobine dafa def L dafa 8 8 normalement hémoglobine bo xolé ci résultat su la par exemple entre 11 ba 14 par exemple chez la femme elle a 8 8 mu taux d'hémoglobine H par exemple comme élevé bu ça que le résultat est bas bu H le résultat est élevé donc par pour qui opération damay ici pour imprimer gis nga résultat bi moo nekk nii donc pour patiente bi 851 numération moom pari na defal nañ ko ko ba pare dañuy jël lii mu agrafé li mu génnee nii rek ñu agrafé ko ci bulletin om ñi lañu defee NFS donc je vais faire comme ça avec tout le reste waaw ah, appareil bi mooy automat biochimie la BTS 350 donc li lañuy def biochimie biochimie tamit boo koy def réactif yi ngay soxla ñu ngi nii rek comme par exemple réactif mooy réactif calcium comme tey war naa def calcium génne naa ko

ma defee calcium bu moom moo nekk nii ci kaw ma def calcium def entré mu andi ko ma liir calcium noonu laay def ak calcium aérogenazo léegi su fekkoon calcium laay def damay ñëw rek ma appliqué méthode def calcium soo ma paree calcium damay def quitté rek génnaat duggaat ci beneen analyse par exemple mën naa dugg ci cholestérol su ma neexee def cholestérol ainsi de suite ainsi de suite créar glycémie yëpp nii lañ koy defee donc biochimie moo nekk nii ak machine biochimie bi dinañ def nag analyse yu bëri ay ñoom cholestérol donc machine bi benn benn analyse buñ ciy def de ngi tudd de sédimentation moom tamit ñu ngi koy tube tamit analyse def numération tube par exemple tube bi ci NFS groupe à test de léegi defal ko NFS mooy numération normalement su def ak

Donc ça, c'est l'anticorps anti-D, anti-AB, anti-B et anti-A. Donc, lui, on peut mettre le groupe sanguin. Sur chaque goutte de sang, tu mets une goutte d'anticorps, sauf à s'il y a Avec ça, tu peux déterminer le groupe du patient, groupe A, groupe B, groupe AB ou le groupe O. plaque bi nga def sa groupe sa groupe sangé ben wala ñaar mais comme bilan de grossesse mën naa xëy am par exemple 10 bilan wala 8 wala 5 su may groupé damay préférer dafa doon ñoom ñëpp en même temps dans ce cas nag kii bi la jël plaque doxalin bi gis nga ma defee numéro ku nek ma def numéro ci plaque bi su ma paree ma def carte gouttes de sang def carte gouttes d'anticorps après mu mëna xam groupe bi donc groupage sangé non lañ koy defee soo paree groupage sangé tamit ki war def test de mère test de domaine moo tax ñu xam si le patient est drépanocytaire ou pas booy test de domaine tamit laam ngay soxla ak lamel da ngay jël laam def ci groupe de sang jël en même temps réactif réactif test de domaine mi ngi tudd métabilisulfure de sodium mu ngi noonu 02 ak 10 ml eau de sier ñoom ngay ñoom ngay ñoom ngay préparer soo paree tu prends une goutte de sang pour le test de nga def ko sur la lame plus une goutte de métal rek soo paree nga def ci lamel jël émail bi nga émail soo paree nga teg 15 minutes après rek nga lire di a xam test fii ngay ñëw ci microscope microscope optique moo nekk nii fii lañ koy liiree grossissement mu nga commencé 10 après nga dem 40 pour gën a gis daal fii la ñuy liiree test demal ci microscope optique bi à part test aussi mën nañ ci lire yeneen yeneen kii yu bëri. Une analyse comme par exemple le urinaire puis am infection urinaire on leen demander demandé dañ koy lire fii ay KOP crachat bar yu bëri dañ koy lire ci microscope donc à part le facteur rhumatoïde ou alors en général ñi am problème peut-être yax ak demander dañ il koy a un am rhumatisme de genre mais c'est ñu ko demandé facteur rhumatoïde réactif bi moo nekk fii fii nag sérologie test yi yëpp su ma koy def muy que ça soit facteur rhumatoïde CRP bëri nañu fi daal asloo ñoom ñëpp su ma koy def plaque bi rek laay soxla plaque bi dama koy jël def ci numéro patient def ci une goutte de sérum su ma paree nag ma def ci une goutte de réactif ça dépend su fekkee moom facteur humanitaire lay def su ma defee une goutte de sang sur la plaque je vais aussi mettre une goutte du réactif daf bu ñu bind facteur humanitaire su dee rek CRP lay def une goutte réactif CRP laay def su dee asloo tamit ainsi su dee bi daal même paree nag fi ñu dinañ xam si c'est positif ou bien si c'est négatif kii bi rek lañ leen doon nu ñu koy defee rek lañ leen doon bi waaw li ci des beneen analyse la à part moom BV la tudd ñu ngi koy demandé souvent bilan ci bilan de grossesse xool ba am syphilis ou pas léegi moom suñ koy def duñ jël plaque bii nii mais yële lañuy jël BV xool ba xam suñu patient dafa am syphilis ou pas léegi réactif BV tamit ñu utiliser pour def BV moo nekk nii donc fii nii page bi mooy sérologie dañ fi liggéey ak sérum bi donc tout ce qui est BV CRP aslo facteur hématoïde fii lañ koy defee te si ñu mën def daal ci labo bi am tout cas bëri na moom macha allah. démarré yàggul mais franchement am nañ tamit ay matériels yoo xam dañ ci mën a def certaines analyses même su fekkee am na yoo xam te ni des na.

comme dama ko détaillé sànq rek wax analyse ñu koy def ak appareil yi donc ngeen ni labo bi peut-être ndaw na teer ma leen di nuyu. Omar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant euh, li wolof di wax naan euh, waral ay gaaf xam naa loolu dal tey man damaa ñëwoon ci centre de santé bi indi woon sama papa mu xaw a tawat ñu demandé ko bilan def ay analyse ma ci labo bi tombé yow it nga ñëw def benn reportage ñu fi

yàlla bu fekkente ne am na li ma ci wax mooy euh, di ci di ci sant yàlla parce que loo xamante ni bala nga ko daan def nga daan dem bu château loolu la nga dem daan boo ko amee fii ci sa biir dëkk nag wax dëgg yàlla ci sant sant yàlla bu baax a baax beneen bi ci dooleeku mooy euh, bi mu ñëwee moom di def euh, consultation centre santé bi fii man li ma nemmeekul sama bopp gis ko fii mooy gis naa fi ñaari médecin généraliste gis naa fi aussi un dentiste ak ay infirmier dem na ba mu dig sax euh, ñi daan wax ni fii dafa yaatu man léegi dama gis ni dafa xaw a xas ba ci sama xel maa ngi wax naan euh, su ma demee au niveau de la mairie dinaa proposer suñu amoon mu gën a yaatu surtout nag euh, salle d'hospitalisation yi ak yeneen